Basuma Basuma Mbare. Ça, ça sera une vidéo très rapide et très courte. D'abord pour vous dire que la situation de la sous-région, tous les pays d'Afrique commencent à reculer. Mais les vassals des pouvoirs veulent insister et veulent insister. Et ça, nous, Africains, on ne va pas l'admettre du tout. On va jamais l'admettre. Ce qui se pose en est que le peuple africain, les peuples africains doivent être unis à jamais. Macky Sall a rappelé tous ses militaires qui sont au Mali pour qui rentrent au Sénégal dardar. Donc la dernière rotation, ça sera demain, le lundi. Tous les hommes vont rentrer au Sénégal, là où l'Assemblée nationale a dit non à cette guerre. Mais c'est normal, c'est un vassal français. Et vous, militaire sénégalais aujourd'hui un grand déploiement s'est déporté où à Djouloulou, à la frontière gambienne. L'armée sénégalaise et la gendarmerie. Eux, tous, ils se sont déportés où à la frontière gambienne. Et je pense que ce n'est pas les soldats pro-Sonko que vous avez dépêchés en Casamance. Là-bas, il n'y a pas de guerre. L'armée gambienne va prendre ses responsabilités pour rentrer dans l'Afrique libre. L'armée ivoirienne, l'armée Guinée-Bissau, ils vont prendre leurs responsabilités pour dans l'Afrique libre. Macky Sall, là, pour diriger le Sénégal jusqu'en 2027. Car le clé d'Orsay, la France l'a promis de l'aider à gouverner le Sénégal jusqu'en 2027. Il faut que nous soyons Aujourd'hui, tous les militaires sont à Ziguinchor. Il y a énormément de militaires à Djouloulou, plus précisément, qui est une zone pour les paras. Comment tu peux déclencher une guerre en Afrique et puis ouvrir des fronts Je vous explique ce qui est clair, vous le Sénégal, vous les autorités sénégalaises. Macky a ouvert un front. En Gambie, il a ouvert un autre front en Guinée-Bissau. Maintenant, il va ouvrir un autre front où, vers le Niger. Rien que pour gouverner le Sénégal. Rien que pour gouverner le Sénégal. Aujourd'hui, dimanche, nous sommes dimanche le combien Comme moi, les jours, je m'en fous. Je suis dans un combat. Aujourd'hui, dimanche 13 août, l'armée nigérienne, c'est le général qui vient de prendre le pouvoir. L'armée nigérienne à mené des frappes sur l'armée tchadienne. Et vous allez recevoir les informations. Donc la CDAO est en train d'hésiter là où le Niger a commencé. Allez acheter vos denrées de première nécessité. Macky Sall veut démarrer quelque chose où si l'armée sénégalaise regarde Macky Sall faire ce qu'il a à faire là, attaquer cette guerre-là, aller tuer nos frères africains, si Macky Sall, si Macky Sall, la première frappe de la CDAO, sachez que la Gambie sera récupérée, c'est automatique, Guinée-Bissau, ça sera récupéré, c'est automatique. Maintenant, on va marcher vers Dakar. Assimi Goïta, notre président, président de la liberté africaine, il faut dire les mots tels qu'ils Il y avait Sundiata Keitano, maintenant c'est Assimi la France, à travers De Gaulle, ils se sont libérés avec beaucoup de pays à travers De Gaulle. Nous, aujourd'hui, c'est Assimi Goïta, notre De Gaulle, qu'on le veuille ou non. Vous, peuple sénégalais, il y a beaucoup de malades. Sénégal, nous sommes très faibles. Nous sommes des médecins cardiologues. bi ñu tëjeeg Sonko léegi dem leen dans les hôpitaux les morts ont augmenté médecins yi dañu jaaxle xam nga lan moo leen jaaxal léegi ay xale trent 32 ans ñooy am problème cardiologie kon les patriotes souffrent énormément ndekete ñi bëgg ci Sonko dëggantaan ñu ngi si kër yi di faatu di dee ñeneen ñi seen xol yaa ngi dog maire yi ñu ngi dem hôpital yenn maire yu bëri dese dinañ si ay jigéen avorté jour bi ñu jàppee Sonko ay jigéen avorté nañ ndax lan métit ñu ne tey système boobu tey Macky Sall ne moom day songu guerre yéen peuple sénégalais dam leen di ñaan jaaree 44 quand la France a tué noo grands-pères vous savez ce qu'a écrit Senghor Senghor c'est un vrai bâtard il a traité nos grands-parents de prisonniers parce qu'il a dit prisonniers noirs je bien prisonniers français. Est-ce donc que la France n'est plus la France Est-ce que nos grands-pères c'était des prisonniers Non, c'est dommage que on a chanté, il y avait des soi-disant intellectuels africains qui disait, qui récitait ça, prisonnier noir, je dis bien prisonnier français. Est-ce donc bien que le, la France n'est plus la France Est-ce donc vrai que l'ennemi a dérobé son visage yow Senghor suñuy maam dañ leen dem xeexal libérer France ñu andi leen rey leen moom mu ne leen ay prisonniers lañu prisonniers noirs, prisonniers français. Il, il a traité les tirailleurs sénégalais comme des prisonniers français. moo tax tey journée commémoration tirailleurs ça ne fout ça ne sert à rien car le système l'a ravalé doo leen comprendre lu bëri ci àdduna dañ doon bàkkoo Senghor lu bëri dans notre jeunesse ndekete on était dans des erreurs la safaraay c'est ça que Senghor nous a fait quand la France a tué Combien de tirailleurs Senghor l'a dit, prisonniers noirs, prisonniers français. Donc ça, c'est le système. Senghor, c'est un criminel. Euh, Macky Sall est à l'image de ce système. Il est à l'image catégorique de ce système. Sénégalais, des portables vont révéler que Macky s'engage à couvrir Adama Barrow. Les militaires sénégalais, ils vont se battre en Gambie pour sauver Adama Barrow. Ils vont se battre en Guinée-Bissau. Sénégal, s'il vous plaît, les généraux, prenez vos responsabilités. Mettez Macky Sall en état d'arrestation et prenez le pouvoir. Sinon, Assimi Goïta, on te lance un appel solennel. Vous, l'armée de l'Afrique libre, si la CDAO bombarde, si Macky Sall insiste, si vous prenez, si vous réussissez à rentrer à Dakar, le peuple va vous soutenir. Billahi, le peuple sénégalais va sortir en masse soutenir l'armée de l'Afrique libre, comme l'armée sénégalaise n'a pas pris ses responsabilités. Assimi, on te lance un appel solennel. Nous sommes étouffés par la politique française, nous sommes étouffés par la politique des multinationales, nous sommes étouffés par la politique du système. C'est le moment où jamais, cette fois-ci, le Sénégal ne sera pas un pays traître. le Sénégal ne sera pas un pays lâche. Cette fois-ci, le Sénégal, ça sera un pays qui va très bien rentrer dans l'histoire politique, mais pas pour couvrir les Occidentaux. Assimi Goïta, Sundiata Keita, on te lance un appel solennel. Le pays, les États-Unis ont reculé non, pour gérer leurs intérêts. Tout le monde a reculé. Maintenant, il reste que Macron et ses fils Macron et dont Macky Sall fait partie et il dirige même le convoi actuellement parce que c'est des généraux sénégalais qui doivent diriger cette guerre. Vous les jeunes de troupes, tout récemment on a massacré, c'est les policiers, les civils qui ont battu deux militaires qui se sont blessés en guerre, qui ont perdu leurs pieds, qui ont tout perdu. Vous les jeunes lieutenants, je vous parle, de, je ne parle pas au capitaine parce qu'il y a plus de PD dans les hauts gradés. Ne me faites pas a des militaires Boy, ne me faites pas parler de l'armée sénégalaise, s'il vous plaît rek. armée wax leen ma ban guerre ngeen guerre ne me faites pas parler de l'armée sénégalaise bu leen ma waxloo yéen nii fecc beeg yooyu ngeen di jàng ak hypocrisie armée sénégalaise les vrais militaires son libere bidde xii wala xtalaak les vrais militaires boo defee deux ans yow mi doon dof dëgg ci carte gi toj Casamance il te libère markatu taati hypocrite yi mel nag major Kandji la ñuy jël ci t'es pas hypocrite dans l'armée là comme major Kandji tu n'avances jamais si t'es pas major Kandji tu n'avances pas dans l'armée laaj leen ñu may wax xam nañ lu may wax bañkatu armée bépp ñu ngi ci biti toog seen kër yéen ñooñu tey laay woo ngeen génn ne Macky Sall kenn du fi xeexee balaa beneen armée di ñëw di def marche vers population bi génn di supporter beneen armée su boobaa beneen armée moo ñu libéré l' armée il est temps de prendre votre responsabilité ngir yàlla l' armée sénégalaise je ne parle pas aux officiers fils de pute je ne parle pas aux officiers qui baisent Macron je ne parle pas aux officiers qui baisent Brigitte Macron je ne parle pas à ces officiers de merde je ne vous parle pas les officiers Mbaye Cissé là je ne vous parle pas aux officiers que qui Amadou Sall appelle, il court en pleine nuit pour aller répondre à Amadou Sall. Je ne parle pas à ses officiers ni à ses sous-offres. Je ne vous parle pas. Je parle, vous les jeunes, capitaine Traoré, il est là, il est plus, il est plus jeune que vous. Montrez à l'Afrique entière que nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes des Africains comme eux. Sinon, si cette guerre-là éclate, la Casamance, si les Sénégalais regardent jusqu'à ce que Macky Sall fait ce qu'il veut, et il va déclarer comme le pays n'est pas stable, le Sénégal, la CDAO est en guerre, lui, il va rester là jusqu'en 2027, le temps de stabiliser la situation, ce qui fait qu'ils vont libérer Sonko, laisser Sonko marcher, laisser Sonko faire sa campagne, ce qui fait que yéen ñëpp kontaan Sénégalais yi leer ne yéen bu ñu leen génnee ne Sonko léegi dossier yëpp bàyyi nañ ko bàyyi nañ fii laay waxee ak sénégalais yi combat bi système bi la ñuy toj mais pas ay Ousmane Sonko génne nañ ko toppeetuñ ko dara deux mille vingt sept day bokk élection loolu laay bañ moment bi te fañ leen jëmee wax ji fa la jëm nii wax ji fa la jëm nii nii nii nii nii nii leer nañ te di ngeen ci jot sénégalais jóg leen ne déedéet ci guerre bi balaa beneen armée di ñëw di ñu libéré xam naa lu may wax. bu ñu beneen armée nar a libéré wala Macky Sall nar xeex Macky Sall l'armée sénégalaise vous les hommes bu leen jël risque ubbi front Gambie bi déedéet Gambie bu Sénégal commencé xeex yéen bu ci seen yoon nekk ziare leen seen Sénégal bàyyi ñu ñu dem wàccee Adama baro yeew ko nokk ko ci kaso bi wax leen lan la sàcc yëpp ak loi góor jigéen ñu mu dugal Gambie ak léegi feetu góor jigéen yi am Gambie pour clôturer Cheikh Omar Diagne xam nga rek man rasala man je m'en fous de kii góor jigéen laa kii du góor jigéen mañ ñi tànk defoo sama kanam ma gis je ne te cautionne pas am na député yoo xam ne Sénégal ku si mel ne Moustapha Niass ONG góor jigéen adduna bi amul lu ñu leen bindalul si Moustapha amul lu ñu leen bindalul ci Ousmane Sonko ONG góor jigéen adduna bi saa waay newoon naa leen Sonko leneen moo koy xeex mais du doole Macky Sall la koy xeex doole état Sénégal an mënul contenir Ousmane Sonko Sonko ñi ko soto bëri PGA ci boppam PGA ci boppam pour la liquidation de Sonko ils ont mis des millions des millions d'euros PGA ci boppam Cheikh Amar Diagne Macky Sall tëju la de Cheikh Amar Diagne ay góor jigéen la tëj ndekete te Moustapha Niass ci la bokk ñu bëri ci opposition bi ci la ñu bokk suñu suqlu Cheikh Amar Diagne ngan dem bi góor jigéen moo la tëj Cheikh Amar man affaire bi dama yéemu ci yàlla. Déthié Fall ñoo demoon seeti états uni Khalifa Sall tournée bi ñu la koy defloo Khalifa Sall 2020 bi nga génnee ne la yow dangay ngay nekk élect da ngay nekk candidat ñan ñoo la ko waxloo pourtant yaa ngi ni jiñ Sonko góor jigéen ndekete xoola góor jigéen ñi ñooy financé nii li ñuy rendi ñoom ñooy dugal ci Marème fay xaalis Marème Faye dugal xaalis bi ci population bi di ñu rendi kon yéen ñi ñi corrompre ñëpp xaalis góor jigéen ngeen ni oh même Touba bi nii ñu bëri ñu ngi leen di jox paas rangal leen ay quinze mille quinze mille ndekete góor jigéen waa PGA ñu financé projet bi nii pour tëj Sonko éliminer ko Abdou Karim Gueye gars yi ndekete seen marche contre góor jigéen bi gars yi dama ko gis si benn vidéo si benn ONG ma gis ay abdu Karim Gueye ay Cheikh Omar Diagne ma ne waay kon sama gars yi leneen moo leen denc ndekete du ay politique gu Sonko de yéen punkal yaa leen tëj yéen ñi Macky Sall jox réew mi ñu jiite ko ba tax lu ko neex muy def yéen ndekete ñoo ñoo leen denc kon yéen fi ngeen nekk noonu ah gars yi xoola paas ñaanal ñi dof njekk ñaanal kabaa njekk moo gën yomb ñaanal Cheikh Omar Diagne ndekk ndax Cheikh Omar Diagne nekkul moo fay génnee boppam. wala boog bu dee dañ ko fa génne dootul wax si PGA te Cheikh Omar Diagne jullit àqan la kenn mënu ko tere wax si PGA. Cheikh Omar Diagne gaa yàlla daaj en complicité nag ak ñu bëri gars baa bàyyi leen di tontu Babacar Fall mais nag match bi tam foofu la match bi foofu la parce que gis naa ne yi. les amazones de Sonko ay maam seen waaw dafa am ñoo xam ne catégorie boo xam bu ñu waxee dafa am ñu leen di tontu am catégorie boo xam jalousie mal placée foo dem da nga ko fay fekk jalousie mal placée foo dem danga ko fay fekk Idrissa Seck ak ñooñu ñëpp xam nañ lu may wax Babacar Fall du moom mooy wax ñoom ñëpp ay toog waxtaanandoo ay Khalifa ak yëpp sekk gars yëpp ay gars lañ quoi groupe lañ waa Pastef ak ñëpp laa ci yemale gars yi gang lañ gang lañu bu ñu buggee sacrifier gars yi on dañ leen di sacrifier jaal ci leneen gars yi gang lañ amul Pastef amul kenn. ma yi nag il faut aller vers de nouvelles perspectives mooy yenn patriotes yi Sonko Sonko foog mu jël ay perfusion neex na xar parce que am na fu muy toll médecin militaire itam bi ñu bàyyi ñu koy sacrifier ñu naan ñoom hôpital bi ñoo ko rey déedéet tàmm nañu reye mais ñi doon reye bu ñuy intervenir seen i clinique la ñuy jóge wala tuuru chef yooyu kenn du leen wax chef yooyu yëpp gars yi jël nañ seen responsabilité dégagé leen Sonko këram barricade bi gars yi moment yi gën nañu radical du ñu nangu dara dugg fa léegi nag yéen population bi dem leen ni ñaan gars yi gars yi na barricade yi tëb na barricade yi tëb xam nga Macky Sall mbàkk mbàkk yee ngi déplacé wu mu leen ne woon ne respecté wu ma leen na barricade yi tëb sinon kenn du màggali xam naa lu may wax na barricade yi tëb sinon kenn du màggali Niger merci président Tiani d'avoir mené des frappes sur le Tchad on demande que la CEDEAO attaque ce qui fait qu'on se débarrasse de Alassane Ouattara de Macky de Patrick Talon de Adama Barrow de Mbalo billahi on va se débarrasser de tous dans même pas une semaine l'Afrique va prendre son indépendance à jamais lan laay bañ nag Sénégal du bokk ci histoire bu bees bi ça sera une honte maa ngi wax di waxaat jël naa non boobu guddi laa koy live jël naa ko ba pare gars yi je vous ai averti j'ai averti l'armée nationale j'ai averti tout le monde nag génn leen manifester pour bu geer bi am yéen Sénégal ngeen nekk si jàmm comme yaa ngeen toog di préparer Magal ak Touba dem leen nduggi ne ku nekk jënd lu ngay jënd ci lekkax naan lu mu gën a bëri teg pour lan armée ñoom ñëpp tey ñu ngi Ziguinchor tey li li wàcc jululu ci militaire ak gendarme c'est trop parce que lan ay portable yu ñuy for portable bu naan dañuy jëli Adama Barrow Yaya Jammeh mu ngi fekk sama portable la am na xaram yi ngeen doon sàcc xaramata Ndiaye Yaya Jammeh le moo président le président africain si Macky Sall déclenche cette guerre là on vous donne le pouvoir ça c'est automatique Yaya Jammeh va revenir en Gambie organiser des élections libre et indépendantes pas Ousseynou Dabo sera le prochain président gambien par force, de force ou de gré, parce que c'est un panafricaniste. Domingo Pereira, Guinée-Bissau, il sera le prochain président avec ou sans coup d'État par force, parce que c'est un panafricaniste. Ousmane Sonko sera le prochain président du Sénégal par force, quitte à ce qu'on organise des, des élections en décembre 2024. L'armée, prenez vos responsabilités avant qu'une autre armée prend ses responsabilités. C'est cet appel-là que je vous lance aujourd'hui. S'il vous plaît, les jeunes, jamais demandé vidéo. Capturez, capturez, donnez à mes frères nigériens. Dites-leur que la population n'est pas d'accord. Mais c'est les vassals français qui vont nous mener à ça. la population va prendre ses responsabilités. L'armée malienne, on vous attend à Dakar et on, vous, vous supporter de tout cœur. Merci beaucoup, frères patriotes. À tout à l'heure.